ولتدخل المصلح في يدي وفي داري وثبتنه بالهادي wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi fi teew ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaar di leen balu àq di balu àq jëpp di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ñaan sunu borom mu yàggal ko fi te ko di am mbégte lool ci jataay bi ak li waral jataay bi bu kàddu yi jëbee incha allah dana dugg ci leeral lan moo waral teewaayu sunu mbokki taalibe yi nga xam ne ñooy waa fédération Touba Espagne te di ay jëwrin di ay jàmbaar yoo xam ne seen yitte yépp weesuwul déglu ndigal ngir mën koo jëfe ndigal loolu nga xam ne nag moom la ñuy déglu saa su nekk ngir war koo jëfe moo leen indi fii ci jumaa ji ci teewaayu sëriñ Afiya bu sa imaam mi nga xam ne mooy kilifa ak daaira muxaddamatul xidma te bi leen sëriñ bi joxe ndigal li boole leen ak sëriñ Afiya ak daaira muxaddamatul xidma ngir ñu ñëw xool ndigal li ñu leen jox mooy lan ak nu mu toll ngir ñu fas ko yéene jafe kon su ko defee kàddu yi nii lay tëddee incha allah danañ jox sëriñ Afia Bousso mu dalal leen su noppee ñu jox sëriñ Mokhtar Kane mu leeral leen li sëriñ bi bëgg nombre tapis ak mètre carré yi ci biir yokk bi ak biir jumaa ji nan lay toll ak nu mel su noppee ñu jox sëriñ Ibrahima Jenn moom mi nga xam ne daayira Muxaddamatul Xidma moom la engagé ngir mu yoral ko mboolem lu aju ci wàllu machine yi nekk fii rawatina machine bi nga xam ne mooy fóot tapis yi te mu bokk ci bu ñuy indi muket yi jëm ci jumaa ji war naa méngoo ak nu mel ne ni machine bi mën a jëflante ak moom te loolu moo koy xam su ko defee dana ko leeral suñu noppee nag ñu jox Serigne Mbacke njaay euh, mu yëkkati ay kàddu ak jëwriñ yi fi nekk ñoom Serigne Adi wala Serigne Daam xariloo ñoom wala ñi nga xam ne bëgg nañ cee jël ay kàddu yu yu ci ko kon dañuy yëkkati kàddu gi jox ko Serigne Afia Bousso asalaamaaleykum wa bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi nuy ñëpp di siyaare ñëpp di bala ak ñëpp di am mbégte bu baax ci dajeeg génn ci barab bu tedd bi muy barab bi nga xam ne mooy xoolu murid yi muy Touba muy jumaay Touba murid bu nekk itteewoo ko lool lu ngéej am ci luñ ci yëngu yàlla def nag tawfiq sëriñ bi sas leen ci sas wu toll ni um leen ci sas muy sas wu rëy di yaatu waaye ñu ñaan bàkk Seexul Xadim ak paste bi tax ñu tàmm leen ba sas leen ko suñu borom jàppandal ko lool te lu ci waaye def lu nag suñu borom nangu ko te ñu ngi ciy am yaakaar bu baax ndax ni ma ko waxee woon rek yéen moom bépp été bu tege ci yéen rek kafe ci njort ngir seen paste matte na ko te Pastef rek mooy jëf murit moom dara jëfewu ko ndax Pastefam te yéen ni ma ko waxee woon xam nañ ci yéen Pastef bu wér boo xam ne xam nañ ne ku nekk fi nekk lay itee mooy moom rek mënoon ko ba def ko koo xam def woon ngéej moom dong mën ko ba def ko nag bu ko saxee ki moroom yaakaar naa jafe-jafe ci am ñu ngi koy yaakaar bu baax di ko séntu mu ak si léegi ak jàmm mel ni raw sax niñ ko taamoo te am nañ ci yaakaar ndax Pastef yooyu lañ gis yooyu lañ gis ci yéen ak yéen yooyu jooju ko su borom àggale kon nag lu des mooy dikk nañ xool nañ barab bi eh, natt nañ ko li des kon xanaa ñu waxtaane yeneen mbir yi nga xam ne aju ci yoonu amal gi rek mooy mooy mooy li ci des eh, waaye balay loolu nag ñu ñuy bàyyi kàddu ñu ngi delloo dinañ fenn suñu cant bu baax a baax yéen moom du ngeen ci noonu ndax sekk nañ nañ liggéey lu mat ñaar fukki ñaar fukki at ak juróom-ñaar yoo xam ne ñu ngi ko seq yéen te lu ñu ma seq yéen lu nekk rek am nañ ko nañ ko bëggee moo tax ñu xam ne lii itam sëñ bi dana ko amee ni mu ko bëggee kon ñu ngi dallu ci lool ci li weesu di leen sant bu baax a baax a baax te di leen gërëm ñi fi teew ak ñi fi teewul ñi fi teew jotlu ko ñi fi teewul di ko jotlu sama Assane Diop mu jotlu ko ñi nga xam ñoom lay seqal liggéey xet ma ci biti te yéen ñi ngeen bokk ci biir kon ñu daal ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di bëgg lool tamit ci boole gi nu sëñ boole xam ne ñoo seqoon liggéey bi dama bëgg dem tax mu boole ñu ngi bëgg ci loolu bu baax leen tàllal loxo di xam daal ñu ngi seen gannaaw noonu ko bëggee rek te seen suñ kam kattan nañ ko ci def soob yàlla asalaamaaleykum wa rahmatullah ku rek ñu wéyal waxtaan wi dañuy jox sëñ Ibrahima Dieng machines yi nga xam ne moo nekk ci jumaa yi moo xam yi nga xam ne moo jóge woon Espagne ak yi jóge woon France mu yi ñu yéeg di dawal ak yi ñu téye yépp yàlla dogal na machines yi comme niñ leen ko waxee woon bi ngeen ñëwee ko siñaafe yu ci bëri dafa paan mi ngi fii yaakaar naa tàmbale woon nañ ngeen cee xalaat sax moom mii moo yor wàllu entretien bi machine bi nga xam ne nag mooy machine bu mag bi fóot tapis yi bi mu fi ñëwee yàggut yaakaar naa 2016 la ñëw waaye lu jiitu loolu mboolem tab bu fi bu fi tilim membre yi daayira bi ñooy wut ay bale yu ñagas ak ay kii yéeg kii di ko di ko di ko di ko fóot bi ñu demee ba xam ne nag euh, loolu moom jamono weesu na ko fi ne war nañoo mën a am machine bu moderne boo xam ne fóot tab moo koy tax a jóg ci lañ ci waxtaan ak ak waa fédération Veneto bi nekk itali euh, ñu wër ko Turquie ginnaaw bi sax Barcelone googu lañ ko jënde mu jar daanaka lu mat vingt cinq millions daanaka mat la ko waaw muy waaw que muy quarante mille euros daanaka yàlla dogal na nag moom si Ibrahima Dieng mii moo àndoon ak tubaab yi ko doon monté ba pare jàng loolu tolloo ceeg ñoom niveau bi ñu noppee nag ci la ko daayira bi jël engagé ko mu yor entretien bi ñaari weer yu nekk yoraale mbooleem entretien kon jaadu na su fekkee dañuy commandé ay ay ay kii dana ci am xam-xam mu leeral ci yan façon mooy gën a méngoo ak li nga xam ne bu tilimee moo koy moo koy fóot kon sëñ Ibrahima bisimilah. salaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi ziare ñëpp euh, sama leeral ci machine yi rek lay jëm machine yi nga xam ni mooy euh, machine yi nga xam ni mooy def euh, raxasu kii bi karo yi. tàmbaliwaat salaamaaleykum salaamaaleykum wa rahmatullah waaw ñoo ngi saare ñëpp ak bëggoon leeral tuuti rek ci wàllu masjid yi nga xam ni mooy waaw kay salaamaaleykum waaw bëggoon leeral tuuti rek ci machine yi nga xam ni mooy raxas uh, ki uh, naka la tuddati karo yi karo yi ndax xool nañ ko gëstu nañ ko gis nañ ni Euh, machine yi ñu ngi leen di teg liggéey boo xam ne bii xëy na maanaam bu fekkoon ne ci machine normale nii rek da ngay gis ni li leen di teg fii ci liggéey dafa bëri te ni leen ko ciy tegee aussi surface su jumaa ji yaatu na yaatuwaay boo xam ni maanaam buñ sañoon ñu am yeneen machine yu bees yu méngoo euh, liggéey bi waaw parce que yi fi nekk am na yu ñu ci mën a reconduire mu dox waaye nag am na ci yoo xam ne tam moom réformer ko moo gën te yi ñu ci mën a defar aussi itam ñaar rek la ci daanaka bay seet kon ñu dolli ko dolli lu mat ñeent wala juróomi machine maanaam dana ci baax ndax li koy waral mooy yeneen yi boo ci boo ko bëggoon a defar tey pièces détachées yi koy defar rek pour nga gis ko problème la ndax bañ ko dafa yàq a yàgg tuuti donc ñu am machine yoo xam ne yu bees lay doon nga xam ne lu ci mën a am ci problème pièces détachées wala yu demee noonu dinañ ko mën a fàggu loolu moom doon moom moo doon gën a nekk sama intervention yii nag am na yu fi nekk yoo xam ne mënees na koo defar waaye boo ko defaree itam rentabilité bi du tax mu demee ni war a demee ndax tim dana liggéeyaat waaye li mooy liggéeyaat mën naa bañ a bari ndax ay pièces détachées yi koy war a tax liggéey convenablement dafa nekk loo xam ne dafa xaw a raar fi mu toll ndax machine yi dafa xaw a dépassé te tim liggéey bi ñu leen di teg fii ci jumaa ji euh, faw xana bu baax a baax liggéey ñu leen fàggoo yi nga xam ne moo tax ñu fàggu machine yi ndax bu fekkee ne dañuy liggéey feneen benn fii ñu ngi fiy liggéey fukk te ba noppi fa continue la ñuy liggéey fa continue mooy du ñu noppal bu fekkoon ne mën nañ am yoo xam ne dañ koy mën a awantee muy loo xam ne tey bu fekkee ne da ngaa jël machine bii liggéey ci nga mën a noppal ko jël beneen wala boog muy doon loo xam ne buñ ko barilee jël ay section yoo xam ne dañuy def xëy na tim machine yu xaw a euh, ëppante doole tuuti yi doon yu yem yi doon yu mag buñ soxlaa espace bu mag ñu jël bu euh, mag bu fekkee dañuy soxla espace boo xam ne tim bu xaw a yem la ñu jël machine bu yem nga xam duñ ci taal machine bu mag a mag loolu tim da ci am solo maanaam xool puissance yi ak itam mu dëppoog mu dëppook euh, lu lu récent daal loo xam ne lu kii lay doon nga xam ne boo demee ba ci euh, entretien ba wala maintenance bi tam doo am problème pièce détachée ndax yi fi nekk nii tey bëri na yoo xam ne seen pièce détachée amatul ndax tim am na ci yoo xam ne dafa waroon ànd ak moom waaye non seulement àndul ak moom waaye tam ñu ngi doon liggéeyloo machine yi liggéey boo xam ne bii daanaka maanaam tim maanaam dafa ëpp doole ci machine yi ndax noppaluñ leen te ba noppi nekk na liggéey boo xam ne du taxaw yeneen machine nag moom ñu ngi def bi def entretien bu baax a baax bu dee lavage moquette bi moom mi ngi dox normal ñu ngi koy def suivi bi di def kii te li tax euh, ñu mën ko aussi mooy ay pièces am euh, machine bi du machine bu yàgg machine bu bees la ay pièces am euh, am na fi bu fekkee ne tam war am nga loo ci war a changer wala yu demee noonu tamit da nga koy commander wala nga waaxu jënd ko mais bu dee yeneen machines yi nga xam ne dafa xaw a âgé tuuti comme yi fi nekk nii yaakaar naa ni war nañu duñ ci mën a sukkandiku pour yi nga xam ne moo fi nekk yooyu moom daanaka li ci ëpp dañ koy war a réformer ñaar rek moo fi nekk yoo xam ne bu ñu ko reconduire yaakaar naa dañ ci mën a liggéey te ba noppi euh, bu ñu leen tegaatee benn coono bi duñ ko duñ mën a dem donc waaw yooyu moom loolu daal loo amoon lu ma ci intervenir waaw jéggalu baax a baax xam nga euh, machine bi bu bu dee machine kii bi bi la bi defar moquette yi bi laaf moquette yi waaw boobu xam nga machine la boo xam ne dañ koo liggéeyee noo xam ni euh, mën na jël façon mën na jël façon moquette yu bari lu koy waral mooy dafa may brosse yoo xam ne bu fekkee ne da ngay liggéey tapis synthétique da ngay démonter brosse yooyu nga monter euh, brosse synthétique bu fekkee da ngay liggéey tim brosse kii euh, tapis boo xam ni coton la tam nga monter brosse boo xam ne coton la waaye yooyu fàggu nañ ko ci ndax machine la bu bees boo xam ne tam dañ cee waajaale yooyu mu wàccaale ci loolu moom wàcc boobu ki ki ko conduire moom xam na ni ma koy manipuler bu fekkee ne dafa am tapis boo xam ne daf ko war a teg mooy loo xam ne synthétique la am na brosse yoo xam ne dañ ko ràññatle ndax yi dañ ko defar couleur bu weex ba yeey yu ñuul la nekk na loo xam ne moom bu fekkee ne da nga liggéey mën naa bañ a am impact liñ ci doon sóoraale tuuti rek mooy dimension tapis yi nga xam ne bu guddee ba mu ëpp ñu war koy lem pour di ko fëgg wala yu demee noonu mm. day indi gàllankoor nga xam dañ koy def mesure bu net boo xam ne bu jàllee ci machine bi bu génnee du am benn gàllankoor te du jar nga koy lemaat di ko dugal ci essoreuse bi essoreuse bi mooy la xam ni moo koy wiccax ba ndox mi set bu fekkee ni tapis bi itam dafa am guddaay boo xam ne tey bu génnee ci machine bi boo ko lemee du mën a dugg ci essoreuse bi tam day indi tuuti problème dañ koy xool mu nekk tapis yoo xam ne tam bu fekkee ne longueur bi génn na diamètre tapis bi day correspondre ak ouverture u bi ba xam ne léegi doo ko ci forcer nga xam ne da nga ko ci kii waaye bu fekkee ne dimension yi normal na tapis boo ko indil mën na koo liggéey ci kaw brosse yi nga xam ne moom lañ ko waajal pour mu di ko pour mu di ko fóot jërëjëf euh, kon loolu leer na xam naa ne kon moo tax euh, faw dimension yi nga xam ne moom lañ tànn sëñ Matar nañ ko jox mu mu gën koo leeralaat li mu doon wax léegi euh, ndax biir jumaa ji ak yokk bi dañoo bokkul ay dimension maanaam nombre bi nga xam ne mooy dimension yokk bi ak nombre bi nga xam ne mooy biir jumaa ji mu gën koo leeral ba mu leer waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi jégglu xam wax jee yombut ci man waaw wax man ma jaaral ci dimension yi ak lim bi dama wax ne biir jumaa ji suñ ko bëggee lal ba mu fees dell kala du feeñ dañuy soxla woo 660 tàppi yoo xam ne nii day guddee ñeenti meetar ak juróom-benn fukk ak ñaar ci ay centimètres 4 virgule 62 yaatoo 1 mètre 80 loolu mooy nekk tapis bi muy doon par benn loolu boo boolee ñaari tapis mu fàtt ab diggante nga xool fi tap bi yem mooy diggante fi ñu fi teg dàll yi foofu dañoo wax ne soxlañ ci 190. téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent ah. nga xam ne tap bi day guddee 3 mètres 70 ñetti mètre ak juróom-ñaar fukki centimètres yaatoo juróom-ñett fukk ak juróomi centimètres mooy 85 mooy nëbbu diggante kanam yi xam ne ni moo nekk ci biir tap bi ci biir jumaa ji loolu moo lay jox kon 190 tapis yu nëbbu diggante kanam yi. cent 660 yoo xam ne nii mooy lale direct jullikaay bi bu dee ci yokk bi yokk bi nga soxla ci mille 1000 tapis nga soxla mooy junni 1000 gudde tapis bu ne day guddee 1 mètre 50 mètre ak juróom centimètre yaatoo ñetti mètre guddee ñetti mètre waaw guddee 1 mètre 1 mètre 50 la yaatoo gudde 3 mètre noonu la kon boo xoolee tapis yi nga xam ne nii. mooy dugg ci biir jumaa ji commencé daaree kaamil ba julukaay jigéen ci biir ak fépp foo xam ne jumaa ji war na ci ab tap mu nem fa ak yokk yi danga am mille huit cent cinquante junni ak juróom-ñett téeméer ak juróom fukk loolu mooy tàpp yi nga xam ne nii mooy lal jumaa ji par ajjuma wala yeneen xew-xew yoo xam ne nii am na jumaa ji tan soxla tàpp yi loolu leeral maa ngi jéggulu loolu loolu leer na kon nombre bi mi ngi noonu façon tapis yi mu waxoon tamit mu doon yoo xam ne yu gason lay doon ngir su tooyee du du yàqu loolu tamit mat na cee bàyyi wala xel kon su ko defee dañuy jox kàddu gi sëriñ Mbacke njaay mu ginnaaw bi mu déggee eh, bi mu amee bi ñu amee ndigal ñëw fii ñu leeral leen li ñu war a def lu mu doon moom la ñuy jox kàddu gi sëriñ Afia dafa wax lu am solo léegi nii ci tawfeex joo xam ne sëriñ bi wax na ko te ma dégg tamit ci ngeen wax ko ci bi sëriñ bi waxee ne euh, foofu kat bariwul ñu ma fay sant ab liggéey waaye yéen dama gis seen pasteef loolu it ñun danañ ci mat seere ndax dañu gis ne fii ci jumaa ji euh, jamono yi ñeen ñëwee kër Sëriñ Afia ñu ngi koy leeral depuis 89 Palma de Mallorca wala Air Canarias ñoom suñu Assane Diop tàmbali woon nañ liggéey bi lu yàgg waaye bi nga xamee ne 2012 ñëw na bañ yaatal ko maanaam Espagne jëwriñ seeni jëwriñ ni ñu amee dégg-dégg ci ci jumaa ji dafa yéeme ndax bari na ñoo xam ne mën ngaa ànd ak sëriñ Maam Mor leeral ko ba noppi waaye buñ noppee bu ñu boo demee rek dañ koy fàtte waaye am xelum nag mën a xam ne li liggéey yi ci liggéey yi gënal sëriñ Tuubaa la bokk ñu toog waxtaan ci seet loolu ni ci Espagne demee lu yéeme yéeme la loolu jataay yi bari am nañ ko ak sëñ Muntaxa ci machine yu ñëw fii mu ñëw wisit ko wala ngeen indi fii ay matériel wala oto ñëw loolu lépp wax dëgg yàgg naa seere seen seen pasteef ci loolu moo demoon ba ne da ngeen di góorlu ci matériel bi te nga bi ngeen bàyyi xel jëmm yu nekk ci biir jumaa yi ba loolu moo waral sociale bi ñu sëñ Afee doon leeral ci sëñ Bas moo ko indi kon yaakaar naa su fekkee dem na ba gis ne kon liggéey bii àttan war na leen ko jox dafa xam ne attan ngeen ko ndax seen Pastef fii nag bëri ay milliards wala am alal ju bëri taxul sa alal mën a dugg ci jumaa ji taw tawfeex Sëriñ tubaa mooy mën a tax nit mën a def daraam ci biir jumaa ji loolu mooy li wér am nay fédération yeneen yu am doole day te amuñ ndigal fii kon nag su Sëriñ Tuubaa xoolee ba jox leen ndigal lii taw tawfeexi Sëriñ Tuubaa la waaye tamit xel mu rafet ak yàgg xam fi ngeen di teg seen tànk moo ko waral loolu ñun mënees na koo seere ngir jonjoo goo xam ne jonjoo nañ ko ak ak yéen te liñ liñ jonjoo gi li ko waral mooy ndigalul kilifa yi ci liggéey buñ ñu doon defloo ci ci yéen ñu gis Pastef bi ak it yittewoo goo xam ne jumaa ji yittewoo na ko ba léegi groupe yi nga xam ne mooy groupe Muxaddamatul Xidma yëpp laat ñoom ñi mat nañ ci seere da dégg jëwrin yëpp di ci soññee te loolu maanaam ak fonk la kon dama yaakaar ne sëriñ Touba lépp loo koy defal te mi ngir yàlla xam na ko bàyyi na ko xel te sëñ mu sëñ Mountakha mooy sëriñ Touba kon moo tax mu sant leen liggéey bi kon sëriñ Mbacke ñu jox la kàddu dug nuyoo ci tuuru fédération bu Touba Espagne bi yëpp di ko teg ci loxo sëriñ Afia bu sey mi toog ak sëriñ Maam Thierno moom sëriñ Abbas moom boroom Daaru Muuti ak mbooleem kilifa yi nga xam ne ñoo ne ci jataay bi yëpp muy kàddu yu nuyoo waaye kàddu yi sant ak kàddu yu ñaan ñu tegal ñu ko ci loxol sëriñ Tuubaa sëriñ Muntaxa di ko ñaan sa borom mu yàggal ko fi lool te wéral ko ba naal yi mu naalal maam ju tedd ji suñu borom yàggale ko ni mu ko bëggee te ànd ko ak moom te waxtu wu ne rek mu dëkk ci naal di yeggale te ànd ko ak moom ma yëkkati ko nuyoo boobu ci turu fédération Touba Islam bi yépp ci sunu kilifa yi nga xam ne xëy na ñenn ñaa ngi ci biir jataay bi toog ñenn ñi yàlla dogal nañu dellu waaye bu ñu tuddee ku mel ne sëñ Mor Tambédou ak Alaaji Abdou Ndiaye ci ñu nekk bitim réew dana mën a yóbbaale ñépp bu dee ñu toog fii bu ñu tuddee ku mel ne sëñ Aadi ture mi toog ak sëñ Jili Diop ñoom Baye Malle ñoom ñoom ñëpp daan mën a yóbbaale mboolem ñu ci biir jataay bi ñëpp. ni nga ko wax rek sañ Abdoulaat yàlla daa dogal keroog. àllarba bii ñu weesu wala boog talaata ci la sëriñ seex bas yónnee ndaw mu ñëw ca kër ga ne ma sëriñ bi de moo la soxla nee na sëñ Muntaxa moo leen soxla waaye nee na yéen ñii ngeen ñëw fekk ko këram ga ca héliport yàlla dogal ma ànd ak ñenn ci jëwri ñu fekk ko sëñ Cheikh Bass këram ga ci héliport ban ko nuyoo mu ne ñu sëñ Muntaxa de moo ma woon démb ne ma bu subaa ci 5 heures na nga ànd ak fédération bu Espagne bi ngeen ñëw fi dama leen soxla yàlla ko ci guddi gi ma woo jëwriñ yu bari ñu àndandoo ca suba ga dem ci sëriñ seex bas fekk ko ci këram gi ci gele ñu àndandoo ak moom dem fekk ku baax gi fii ci Daaru Minam yàlla dogal na ba demee tamit ñun waa Espagne rek ñoo nekk ak moom ci biir ak sëriñ seex bas ban ko nuyoo ba toog mu ne maa yabaloon sëriñ seex bas ci yéen de ngir mu woo leen ngeen ñëw fii ci man daal ne nag dafa am liggéey boo xam ne dama ko ba teg ci seen loxo ngeen saytul ma ko daal ne jumaay Serigne Touba ji laa bëgg lépp luy ay tàppi ci biir ak bitti ngeen sanseel ma ko daa teg nag ne dama xool ba xam ne man ngeen ko moo tax ma jox leen ko tegaat ci ne comme li sëñ laa doon wax ne fii ku suñu borom nër si liggéeyloo du la fi liggéeyloo loolu la sëñ Muntaxa leeralaat ne musuma cee jox kenn ngir mu defa liggéey yéen yéen yéen ñi ma ko njëkk a jox ngeen ngeen liggéey ci béréb boobee tekkee tamit ne dama xool seen passif ba ma tàmbulee ñëw lim na 91 ba fa njëkkee ñëw Sewija noonu la ko waxee ba ci rek ba fi mujjee ci euh, Madrid ni ngeen ma jàppe ak teraanga ji ngeen ma defal ak passif bi ngeen di wane ci man looloo tax ma xam ne liggéey bii su ma leen ko joxee ni ma ko bëgg dangeen ko def moo tax ma jox leen ko tekke ne am na sax ñu woon wax yeneen réew xëy na yoo xam ne mën naa am ñu ëpp doole ñu ëpp mbooloo Espagne waaye ban ma ko waxee dama ne Espagne yi damaa gis ñoom pas-pas ak pas-séef boo xam ne su ma leen ko joxee danañ ko def moo tax ma jox leen ko kon yooyu yëpp dafa daje ci ñun ku toll ne Serigne Touba seedeel ñu ko kon loolu war nañoo góorgóorlu baax a baax def ko nag muy ab soññee ndax waa góori suba teel moom ab soññee la kon ñu santal yàlla bu baax ñun waa Espagne ba nu Sëriñ Tuubaa boolee ci boppam ba wàññi ko duñu liggéeyloo wallaahi ni ko suñu ablaad mi waxee yombul ay borom yi milliardaires yi ngi fi toog yoo ne ku ko sëñ bi ne woon sanseel ma ko balaa mat weer mu dindi yépp def ci yeneen waaye loolu mu ko waxee rek fii du ceegi ne alal moo fiy liggéey Sëriñ Tuubaa mooy xool ci yow ba xam ne war nga fee liggéey mu liggéey loola fi ndax béréb bi gën a bàyyi xel ci ne mooy béréb bi gën a sëriñ ci waa ndax fi la tëdd te ak dundam gépp loolu laa wax kon bu nu suñu taw fee ñu am xéewal gu toll ne sëriñ Tuubaa liggéeyloo ñu ci béréb bii war noo sant yàlla bu baax ñu ne sëñ Afee ñu ngi lay yónnee ak cant ci sëriñ Muntaxa ci liggéey gi ñu liggéeyloo la sëñ Bay Faloo daa wax ku ko masaani kaay wuyu sëñ Cheikh Mbàkke bu ne bërit ab junni la lay neexale door a wuyu sëñ Cheikh ñu ne amee na la neexal googe kon nag ñoo ngi santaat yàlla bu baax ci boole gi mu boole ci boppam li ci des nag mooy dégg nañ li ngeen wax lépp bind nañ ko xam na ni tamit li ngeen ci soxla ci ay meetar bind nañ lépp léegi des na dem ci suñ biir woote ci ay waxtaan ba tënk li ñu war a tënk lépp nañ ko waxee woon keroog kër sëriñ Cheikh Bass ndax sëriñ Cheikh Bass kat bi mu sëñ Muntaxa waxee loolu ba noppi dafa jëlaat kàddu gi ne war ngeen sant yàlla bu baax ndax li ma dégg sëriñ bi seedeel leen ko keroog ba mu ma woowee néewaa na may dégg mu koy wax ci làmmiñam loolu la sëriñ Cheikh Bass wax kon nag ñu santal yàlla bu baax bu buñ fi jógee des na xool béréb yi nga xam ne xëy na fa la mu ko yëg gën a bu jaree dagg ay ndaw dana dagg ay ndaw ñu dem fa tànn mukkeet yi gën a méngoo ak bérébu sëñ Tuubaa bi indi ko fi ndegam soob na suñu borom kon ñoo ngi koy tàllal loxo sëñ Afia di sàkku ci ñaan ci barke béréb bi ak jataay bi su borom ak gatandu ba ni ko sëriñ bi bëggee ñu defee ko noonu lépp loo xam ne lu méngoo ak béréb bii la gannaar bu ñu nee yi li koy saytu yëpp ne ñu defal ak ngatandu ba lépp ñu boole ko ci biir incha allahu rabbi ndax yéen waa Espagne kat yàlla xam na ko ne fan yii ñoom ñëpp nga taxaw jonn ci rek ba ndigg ndigal ba nëgë ni amatuñ jàmm ngir ñu tobbi ay eh, addiya ji ba wax leen ko waaye de nañ ñu may ndànk rek ndax day liggéeyu mbooloo boo xam ne kenn du ko surqu surxee dañ koy def ndànk rek ba waxtaane ko ba déggoo ci door a yëkkati lépp tasaare ko ci waa Espagne ñoo leen sant bu baax nag di leen gërëm di ñaan sama defal ñu xéewal yu yaatu yoo xam ne ni ko sëñ bi bëgg dañ ko si defe ñoo ngi sant ñëpp di sant mbooloo mu fi teew ñëpp waa Espagne ndax lii démb bi ma ko suñu affaire waxee ci sensé laa woo mbooloo mépp ñu ñëw teew kon defante li fi teew rek war na liggéey bi ñor na leen kon nag ñoo ngi sant mbooloo mépp xam naa si damay jox suñu Adi moom xam naa luñ ci war a wax dana ko ci jottali maa ngi sant ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñoo ngi sant ba ci suba la woote ne day ñëw sama kër maa ko ñaan ne ko kon de mën ngaa bàyyi ba ngoon ndax dina am am ndaje ak dayram xaadamatul xidma ngir war a saytu béréb bi mu ne kon naa bàyyi ba ngoon ma ñu ànd kook yéen ci suñ biir la nekk ca Espagne gee di fa dox waxtu ne ak saa su ci ndigal sëriñ bi kon loolu rek la doon seeral sañ affaire ñoo ngi sant bu baax wa salaam jërëjëf asubillahi min shaytaani rajim bismillahi rahmaani wasit barahi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa mbokki jullit yi mbokki taalibe yi gannaaw bi ñu leen nuyoo ñu leen di siyaare bu baax di jiital ci nuyoo bi saahibul fadilati Cheikh Mouhamadou taxa ñaan sunu borom yàggal ko fi ñàggal ko fi te mu wér lool eh, di nuyu Serigne Afé mi nga xam ne bii ne mooy kilifa getaay bi di kilifa jumaa ji jiite ñëpp sëñ bi ñu ngi lay nuyu bu baax ak mboolem ñi nga xam ne bii ni ñoom nga àndal liggéeyub daayiratul muxaddamatul xidma waaye nag di nuyu sunu wëlëre yi sunu mbokk yi nga xam ne bii ni démb ak bërki démb ñoo doon dox suñu diggante ak yow tàmbalee ci sëñ Abdou Lahad ak mboolem ñi mu àndal euh, ñu ngi leen di nuyu bu baax waaye nag di nuyu sunu jëwrin sunu kilifa sëriñ Mbàkke Njaay ak mboolem sama jëwrin yi nga xam ne ñoom laa àndal ñu nekk ci Touba Espagne waxoon naa ne mënumaa lim benn dëkk mënuma ne kii la ñuy njëkke wala kii la ñuy mujje li ma bëgg a wax daal mooy njëkkante la ku feeñ dootoo nëbbu ku nëbbu dootoo feeñ loolu moom lu ñëpp yàgg dégg la kon nag man na maa lim jëwriñ yi fi teew waaye dafa am lu ma baaxoo woon a wax ca Palma te danaa ci joxe ab seere damaa toog sama kër ñu ñëw na ma jox nañ la ngay jëwriñ daayira sëriñ Touba bi ma ne leen yéen ñëpp de def naa leen ay jëwriñ kon mboolem ku nekk Espagne di wax ashadu an laa ilaha illa allah wa ashadu anna muhammad rasulullah dib taali bi jàppal na yow jëwriñ nga ci liggéey bi te bu ñu xoolee wàll gee gone yee fi ñëw yëpp dama leen woon dem na leen ku fi nekk dëkk Palma de Mallorca na nga ñëw teewe si liggéey bi boo lëgatee bu ma nee lii la ngeen ne fekke nañ wala gisoon nañ ñu wax lii te ay ndaw ñoom ñoo ci nekk ma waxoon ne it sama liggéey bépp nag dama koo yaakaar teg ko ci ndaw yi kon mboolem ñi nga xam ne bii ni ñuy ay taalibe di ay ndaw nekk Espagne ñoom lañ jël liggéey bi teg ko ci seen loxo ndax ndaw moo mën a jëf ndaw mën a yëkkati ndaw mën a teg mag nag li ñuy wax mën naa ba ci am réew lañ leen war a waxal ku yàgg ci njaw di njaw liggéey bu ne jaar na ci sunu loxo xalaat bu ne def nañ ko fi buñ xoolee fii ci sunu gannaaw hôpital Jannatul Mahwa bii Espagne ko xalaat njëkk koo liggéey te booba e, dëkk bi soxla na ko soxla goo xam ne gii ne kenn xamul lu mu doon ak yeneen ak yeneen ba ci liggéey daayiratul muxaddamatul xidma bii ak li nga xane bii ne moom lañ doon def muy entretien ci jumaa ji mbirum set setal tàmbalee ko 89 ba suñu jonni tey kon nag li ci suñ gannaaw buñ ko geesu ndax sëñ bay jaxate nee kuy dox di kuy daw di geesu lee mu ne lii ma dox daw bari na te buñ yaakaar ne li ñuy romb du dara ndax jumaa ji ba ko Seex Mamadou mustafaa fondement ba léegi at mu jot liggéey baa ngi ci poto buñ xoolee ngi nii leneen a ngi nii leneen a ngi nii kon bu ñu demee ba ñu nit ñu bokk ci liggéey boo xam ne teg nañ ko ci sunu loxo rikkuwaay kenn ku nekk na ko fonk lu raw na mu fonke lekk ak naan na mu fonke lu muy jox ak njabootam ndax kat lu fi waaye mën a def ëllëg nga teg sa loxo lu jiitu liggéey bii man di gisuma ko xawma ko kon nag sëriñ Afe sëñ maam na Abbas ak mbokki Mbàkke mbusoo bi yii fi teew ak yéen jëwrin yii na ñu ñaanal ba yëf yi sotti coleet te jàppandi ñu wér lool te yor yor addi yi juñ mën a joxe lu doy wér guñ mën a liggéeyal sëriñ Touba loolu sëriñ bi daal mooy moom lañ la sas mooy suñ diggante ak yow li ci des moom amuñ ci tiituwaay ndax ñun ñi fi teew ñëpp kenn ku nekk liggéey nga këru fanweeri million ñeen fukki million kon kon loolu bu fekkente ne lii nag moom dañ la ko caa def te wër na la yow doo ca def fukki million doo ca def juróomi million war nga xam ne bii ne kon lii lu jàppante ci yow la léegi bi ma yegg see da nañu liggéey bi di rëy na ma ne la woyof na tooy ndax sama najaay wala sama mag si alaaji Abdou Ndiaye ci Tenerife dafa wax ni ki ñu wax liggéey bi dañoo waroon koo jox ab neexal léegi sëñ Mbàkke nettali na ko ma ne ko man nag neexal gi nga xam ne bii na moom laay wax sëriñ Afe ak Cheikh Modou Muntaxa mooy liggéey bi gaaw yegg ñoom ñu yàgg fi lool ak ñun incha allah loolu daal lañ leen ciy dolli yéen it li ngeen wax ci mbirum eh, li nga xam ne bii ne mooy dundal lii xam nañ ko waxoon naa korok ci sañ Afe na jumaa ji day sangu di soli yére boobu xamu woon kon yére bii danañu ko solloo kon nag matériel bi koy sang di ko setal nañ ko daal di fannoo def ko ci boole ko ci ndax mën nañ ko muy ñambaas wi wala muy neexal bi nga xam ne bii ni moom la ñuy neexale waa jumaa ji ndax ñun ñëpp kat waral nañ fee xëy di balee ko buub di fëgg ko lal waaye di fépp lépp set rek nga ne allahu akbar asalaamaaleykum ñaan say soxla faayu loolu moom yomb na li wolof naan ka tax ñu tal ko talu ko ku dikk fii ci jumaa jii gisuñ fi kër gisuñu fi dara waaye teraanga jii ñu fi gis ci ngoon gi képp war naa doy kenn ku fi jóge ku ne mën naa am la nga ci mus boo demee boo xoolee sa njaboot rek muy tawféex di saadatu daara yi kon nag sant nañ leen bu baax sant sëriñ Afia ñuy ngi bëgg a guddal wax ji ndax bu wax ji baree rek ñu wax lañu waxaatoon waaye yéen ñu fi teew daal jël naa leen seere rikk waay bu fi kenn delsi di sajj xef wala ngay tàllalu loos na sëñ bi bég ci mbég moo xam ne mii ne kenn musu nee bégee sëriñ Afi mii jiite ko ak mboole ñi nga xam ne bii ne ñoom lañ teg loxo jumaa ji seen loxo ñu bég mbég mu ëpp loolu loolu daal lañuy ñaanal suñu bopp di leen ko ñaanal na ñu baal àq bu baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim nasrun min allahi wa fatun qaribun wa bashiril muminina wa zakilu bi wafta an rabbiliya fat an mubinan laa yura li misliya asalaamaaleykum mbalo mi ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaare di ñaan Cheikh Mountakha yàgg fi lool te wér ñuy jël nuyoo bi ak siyaar bi di ko teg ci loxo sëriñ Afia mu jàllale leen ko fépp fi mu war a dem nuyoo boobu ak siyaar bi ñu ngi koy def ci turu fédération daayira Espagne ci njiital sëriñ Mbacke Ndiaye ak kilifa yu baax yi moo àndal di liggéey sëñ Touba ku mel ni suñu jëwriñ suñu président d'honneur Serigne Mor Tambédou ak Serigne Abdou Ndiaye buñ leen tuddee dafay mel ni dañ yóbbaale kilifa yi. di bàyyi xel bu baax kilifa yi ñu bokkal jataay bi di leen sargal te di leen siyaare te di leen jox seen wàccuwaay e, xam naa dafay mel ne dañuy barkeelu rek waaye kàddu yi li ci ëppoon sunu jëwriñ sëriñ Mbacke Ndiaye wax na ko te mooy pësteef bu kawe ak yitte ju kawe ak yéene ju kawe yàlla na yàlla jàppale e, sëriñ Aadi tamit fi mu jaar doy na xanaa. ci biir barkeelu gi rek may bàyyiloo waa Espagne ne leen sas wi sas nañ na ko rëy na waaye murit bu bëggee bayu sasam du wër aw sasam day xam foofu sas fa nekk rek mu tàmbali te xam ne lépp lu waaye tàmbali ngir sëriñ bi danga nga eggal ak jàmm ndax sëriñ bi lépp nga dese sag bi euh, ñuy rafet njortit nag bu baax ndax liggéey bi jox nañ ko réew moo xam ne bu ñu bàyyee xel li nu sëriñ bi defal danañ def liggéey bi ni nu ko bëggee bay laaj aw ñaraas ndax sëriñ bi daf ñoo joxañ fédération bi ci biir liggéey bii mënu jox loolu mën déggee naa ko ci ndax képp kuy nekk Espagne tey dafay mel ni fédération bi jot na pour nga ñëw ci ndax Espagne lañu wax Espagne nag buñ ko waxee mooy menn réew mu ëmb cinquante deux raisons ëmb dix sept euh, euh, comunidad de province loolu ñu nekk Espagne xam nañ ko commune comunidad de province dafay ëmb ay reson yu bari kon liggéey bi rey na waaye réew mu rëy lañ ko jox kon nag li des mooy nanu yeesalaat pas te takkaat laxasaay yi te xam ne sëriñ bi danoo dimbali ndax sëriñ Tuubaa kum nar ta fay du la liggéeyloo te Cheikh Mountakha Cheikh Ahmadul Khadim yàlla na fi yàgg daf noo defal tawféex ndax daf noo tànn ci biir tànneef yi ndax àdduna yaatu na Europe rëy na kon bu jëlee liggéey bu toll yi jox ko Espagne daf noo bëgg a dimbali kon loolu nañ ko xam te jàpp ci te fas yéene bay sas yi bañ a loolu lañ amoon yëg-yëg ndax li ëppoon ci kàddu yi sëriñ Adi def ko wax sama jëwriñ ak suñu jëwriñ sëriñ Mbàkke waaye suñu xol sedd na sum xel dal na ndax liggéey bu la di liggéeyloo ba noppi ñaanal la ci gunge la ci boobu liggéey bu dal xel la te mooy liggéey bi kon dañuy bañ a jaar fi ñu jaaroon rek ni ko sëñ Aadi waxoon te sëñ Bay Jaxate dafa wax ne sëñ Musaa Ka moo wax ne xanaa xamoo ne yoon du egg xanaa xamoo ne yoon du yem yaay àgg foo jëm mu mën a jàll kon ngaa dégg kon bay boo nu yemal fii kàddu yi te ñaan suñu borom defal nu tawfiq ak taysiir defal nu wax fir la naa waafina bi afiya takkoonu fii daara yi ni xëyr afiya ñu ngi nuyu sëñ Abdoulaye Thierno ak mbooleem mbooloo mi di saar ñëpp jërë ngeen jëf jërëjëf sëriñ Abbas mu yëkkati ay kàddu suñ noppee ñu jox suñu Abdoulahat mu mu tëj wajxal kalaami rasidan wa mursida wa fikrati nawir wa xalbi arshida jërëjëf sëriñ Touba mbokk yi ñoo ngi leen di siyaar bu baax a baax tey siyaare ku baax ki sëriñ Xaafiya minu sëriñ bi booleel kàddu yi di kàddu yu gàtt waaye sëriñ Mbàkke mii wax na ne na sant mbooloo mi waaye liggéeyub sëriñ Tuubaa damay wax ne jërul sant kenn duma ci ñaanalit kenn waaye na ngeen xam ne bi nu sëriñ bi booleeg xaafiya mii am na lu ci ne tey sëñ Tuubaa defal na nu tawféex man de béréb bii nii tooguma ci jataay bu ma mu toll nii ma ci toog mosuma ko cee taw ci jumaa ji waaye kenn ku ci ne ci ñun ci ñi xam andalus boo xooloon jumaa ji day mel ne yaa nga foofee ci liggéey ba fa ne ca lislaam yàgg na fa lool ku ne xam na ko ci yéen téere yi boroom xam-xam yi jàng yi ci bari ñu ko bind nga foofee kon bu sëriñ bi di tànn foofee xam na la tax mu koy tànn sëñ Tuubaa xam na li muy def nag wi ñu boole ko moom sax boo fa demee dañ lay wax ne foofu lañ ko yare woon ci Andalus ci xortoo ba muy Cordoba waaw ba li ma bëgg wax rek mooy nañu xam ne lii moom lu woyaf la man de li ma doon séentu bi may ñëw di toog fii mooy sëriñ bi ne nu nangami meetar la couleur sàngam lañ bëgg loolu day daal di am moom loolu moom lu jàpp ni lay doon bu dara dee war a jafe lu muy mën a doon mooy li ngeen wax sëriñ bii moom ñun ñëpp nañu xam ne ni ko sëriñ Mbàkke waxee léegi ameel nan ko ab neexal moom mii nga xam ne moom lañu Sëriñ Tuubaa booleel ndax kat ni ko jëwrin si Touré waxee léegi kenn ku ci ne ci ñun tabax nga kër goo xam ne ëpp na 30 million kum kum nekk ci ñun gaare suñuy oto ci bunt bi loolee nag lanu bëgg a wax mooy nañ ko jëf ba jëfaale ci moom ba kenn ku ne xam ne liggéey bi moom woyof na tooy loolu nan ko xam ndax béréb la boo xam ne li may wax ci sëriñ bi lëmbatuwu ko mooy kan moo yoroon liggéey bi mu wax léegi nay Espagne daana def muy sëriñ daam Ndiaye ku am pas-pas la ba mu ci sëñ Mbàkke mii ñu ko joxit xam nañ ko bu baax a baax jëyuñu ko ndax ëpp ñu xaalis jëyuñu ko de sëñ Touba képp lañ ci seeral ndax kenn ku ci ne mi ngi fii dinu dégg nekkut fenn ca kenn ku ci ne ci ñun xam na ne boo fa delloo la ngay liggéey asaka ja lii ñuy def ci ay mukket moom doo ko ci def kon lu lu lu lu lu lu lu woyof toy yi lay doon waaye fu ab murit mën a nekk ca Espagne te ñuy déglu bu ci defut yitteem it defu ci pas-pasam perte maam lay doon ndax liggéey bi moom dana àgg liggéey bi moom dana àgg foofu waaye mën a ne say boo nga toog sa ruq naan gaa yi ñu lijjanti ndigal laag lu mu mën a doon du tee moom ndigal li dana àgg moom ba laneen ndigal di taxaw di di àgg moom loolu nan ko xamal suñu bopp li ñuy wax nag nëbb nu ko kuy së kuy soj ak wér loolu nan ko xam danoo xam ne liggéey sëñ Tuubaa bii moom day dem day dem ndax ni mu ko waxee léegi xaalis bi moom am na ña nga fay dem de ñu ngi sant yàlla bu baax a baax ku ci demoon xam nga ko xam nga ne boo fa demee sëñ Tuubaa dana leen dimbaleel boppam te it loo ca mën a def moom nanu xam ne li ñuy def fii moo nu ëppal njariñ fuuf muy ci néegub yàlla bii sëriñ bi nekk loolu nan loolu nan ko xamal suñu bopp waaw muy muy tawfeex joo xam ne am nan ko waaye daal ñi ngi am mbégte moo xam ne ci bokk gi ñu ci bokk ndax sëriñ bi moom damay wax ne lam doon def rek loolu mooy delsi nanu jàpp ne daal ñu àndoon ak moom ca bu njëkk képp ñooñu la fi seeni sët di nekk sëriñ beet noonu lay demee ñooñu képp ñooy nekk ci ginnaaw sëriñ bi waaye daal nanu am fayda joo xam ne suñu yitte du lenn lu du liggéeyal sëriñ Tuubaa loolu moom nan ci nekk baax a baax ñu ngi sant bu baax a baax tey bañ a guddal bu sa jégg lu baax a ci kàddu yi jërëjëf Mhm, jërëjëf sëriñ maam Thierno bu maam Thierno waxee nii ci jumaa ji moom dafay dëppoo ak lu war jërëjëf yow it ñu ngi lay sant bu baax di sant kaddu yi nga xam ne moo fi jàll yëpp su ko defee kàddu gu mujj gi dañ koy jox sëñ Abdou Lahad mooy tëj kon sëriñ Mbàkke yow it nii sëñ maam Thierno wax am nga tawfeex ndax eh, ak jëwrin yi nga xam ne ñoo nekk ñoo tombe ci liggéey bi ndax ñun liñ ci mën a seere ci mbooloo yi nga xam ne gis nañ ñu jël ab liggéey ci jumaa ji liggéey ko moo xam tubaab Veneto la moo xam France moo xam Espagne waaye dafay mel ne loolu suñ ca jógee laneen lu ñuy def lu lu waa dëkk boobu di def lu ci lu am doole sax ñoom lañ koy far sant kon loolu tawféex am na ci loolu ñun mën nañ koo seere bu baax a baax a baax ba bëri na dëkk yoo xam ne biñ defee ab liggéey ba sottal ko dañoo far jël liggéey yëta jox ko ña doon coordonné liggéey bi ñu doon def ci jumaa ji loola dama yaakaar ne barkeelub jumaa jumaa ji la yéen tamit bu leen sëñ bi santee liggéey bi yaakaar naa yàgg ngeen yàgg jëf la ak it barkeelub jumaa ji moo tax mu xalaatal ko boppam yi sëñ maam Cerno wax lu mat a bàyyi xel la yéen sëñ bee jekki-jekki xalaatal leen boppam wool leen boppam jox leen joxal leen ko boppam <laughs> loolu moom mooy li wér moom waaw <laughs> kon nag sëñ Abdou Lahad bisimilah bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi wa kafa wa salaamun ala ibadihi alladina istafa assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu kilifa yu tedd yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di tàmbalee sunu kàddu ci sëriñ Mbàkke Njaay mi nga xam ne mooy président fédération Espagne sëriñ Hadi Touré di leen yóbbante ci jëwriñ yi nga xam ne ñoo toog ak ñoom ñii ci jataay bi ak jëwriñ yi nga xam ne ñoo nekk ci Espagne te jotuñoo ñëw te mu wóor ma ne seen xol ak seen xel ñoom ñëpp ñu ngi ci barab bii tey jii rawatina sëriñ Asad Diop xam naa ne moom fu ko waaye mën a fekk tey jii xol ba ak xel moom mi ngi fii ci jumaa ji may ñu sàkku ci man ne naa tënk rek eh, lenn ci ay kàddu yu néew ay leeral leeral yi nag damay tàmbalee ci li sëriñ maam Thierno wax léegi rek te ngeen wax ko léegi tawféex daf cee amaat ju rëy moom mii sax teewaayam bii mu wax nii tawféex la te it listixaar la ndax jumaa ji yaakaar naa ba ko sëriñ bi njëkkee santaane euh, maam Thierno la ko jiiteloo woon mu jiite liggéey ba yaakaar naa ndaje mañ ci njëkk a def moom moo ko jiite ca tàmbali ba ba mu àgg fa mu àgg kon loolu listixaar la ci yéen ci ne bu leen sëñ bi sante ab liggéey ngeen war a daje ndaje mu njëkk mu woote ne def fii ñëw ñëw yem ca ndaje moom ànd ko yéen te way juram toogee jataayu maam Thierno tey jii seen xel war naa dal bu baax a baax ci teewaayam boobu te xam ne du asaar kon loolu listixaar la joo xam ne day wane ne na li mu waxee léegi mag ñoo ñuy àndoon ak Serigne Touba nañu laxasaaye woon ca ginnaaw maam Thierno tàmbali liggéey bii liggéey bi dox na ba àggee nañ ko bëggee woon waaye kon yéen itam bu ngeen tàmbalee liggéey bi yàlla dogal mu fekkee ko ci tàmbale bi ci noonu war ngeen dalal seen xel ci ne liggéey bi dana àgg na ngeen ko bëggee ni ko sëriñ Afia waxee woon léegi. liggéey bi nag wax nañu ni ñu ko bëggee lépp xanaa tuuti rek ay leeral ci yi nga xam ne jàlloon na fi te bokk yi wax ko te ñu sàkkuma leeralaat ko mooy machines yi nga xam ne ñu ngi koy wax mu nekk fi machines yi wax dëgg yàlla bari nañu ci jumaa ji. waaye niñ ko waxee yi ci mën a liggéey bariwul lu tax yan yi fi ñëw woon bees niñ ko waxee woon te yan yi jóge Espagne ak yu jóge France ak yu jóge feneen yooya ñooy yi nga xam ne moom la mbokk bi wax léegi ni mënees na ko defaraat mu baax waaye yi woon occasion am na ci yoo xam ne wax dëgg yàlla jotuñoo liggéey dafa tolloog nag nit dafa tolloon nag morit yi dañoo xër-xër goo xam ne lu ñu gis fu ñu gis lu baax ak lu lu loo xam ne jàpp nañ ne lii mën naa defar rek barab bi lañ koy yéene ñu di ko jënd di ko indi te ñu ci bari duñ bàyyiwaale xel barab bi ak tolluwaay bi ak yaatuwaay bi ndax barab boo xam ne ëpp na ñetti hectare war naa man ñeenti hectare te lépp di karo yaakaar naa ne loolu li ko mën a defar ci ay machine dana xaw a jafe te it humidité bi am fii wala tàngoor bi am fii bokkul ak climat ba am foofu ñaareel bi yi nga xam ne liggéey nañu jot nañoo liggéey foofa am na ci yoo xam ne bu ñu egsee fii am na ci yoo xam ne sax indaale wuñ caabi ji koy taal am na ay jafe-jafe yu ndaw ndawaan yoo xam ne nit du sonn ci alal kër kër ci bay bëgg a dee fay ci xaalis boru jeex andi ko nga naan ko li nga andi baaxul loolu moom xel xel mu rafet fekkewu ko loolu moo tax euh, yan yi bu ñëwee itam danañ ko nangoo nangi mu rafet teg ko fi jéem ci luñ ba xam danañ mën a sotti wala du mën a sotti su mënta sotti itam ñu naan la di sant ndax yéene jam ca am ak pas-pas ba mu am ak coono ba mu ca daj ak alal jam ca ñàkk ngir indi ko fi ngir jariñoo ko bu ñëwee ba egsi rek moom la mu ca bëggoon am na ko kon loolu mooy leeral yi nga xam ne moom lañuy leeral ci machine yi tapis yi itam li tax ñuy naan nañ mooy tëdd ko yoo xam ne day am carton wala lu mel ne caas wala yu mel noonu mooy suñ maxtaar wax na ko léegi mënut a ñàkk léeg-léeg mu tooy te bu ko amee bu tooyee bu woowee rek dam léeg-léeg mu àgg ci barab boo xam ne du mën a ñàkk a su amee lu mel ne carton wala mu am lu mel ne caas su lemoo buñ ci jogee rek day daal damm te it day may damay dellu dellu baamu li sëñ ari ñoom doon bañ man danaa ko def mooy baamu mooy sonn ci ab liggéey bu toll noonu sëriñ bi sant leen ko ngeen def ko mu rafet lool ñëpp di ko coow mu egsi am ñaari fan ñetti fan ku fi dugg gis ne bii damm na bii toj na bii def na nangam loolu gënaluñu rawatina suñu diggante ak yéen ci ànd bu rafet bu yàgg bi nga xam ne ànd nañ ko génn te lu mu néew néew néew néew am nañ ci expérience ndax fekke nañ fi ay tapis tapis yoo xam ne benn bu ne gis nañ la ciy gàllankoor kon loolu gàllankoor yooyu duñ leen ko mën a yéene mukk loolu mooy tax ñuy wattandiku mu am lu mel ne da am yoo xam ne nag ni mu koy amee boo amutub seetlu dëgg dëgg dëgg dëgg doo ko xam bala dangay dem ba mu yàgg rek nga gis mu tooy mu damm wala mu lemu ñu joggi ci mu damm day mel ni ab lañcate ci jaar loolu moo tax ñu di ko wattandiku loolu tawféex ji nga xam ne nag sëriñ Abdou Lahad wax na ko léegi ne moom ngeen am yéen waa fédération Espagne ci liggéey bii nga xam ne sëriñ bi jox na leen ko wax ne am na sax yeneen fédération yu am doole ci àdduna bi yu yaakaaru ak ay kilifa yoo xamante ne bi ñi ngi taxaw te buñ sañoon tey jii ñu jox leen liggéey bi ñu àggale ko loolu dëgg la waaye tawféex joo gis dafa am ku ko yàlla jagleel ñooña du seen du dara lu manqué ñoom seen pësteef mate na ko seen man-man mate na ko seen yéene egg na ca rafet nañ jot ci ne bu ñu leen ko joxoon itam danañ ko defee ni ko sëriñ bi bëggee waaye yéen ñii la ko yàlla jagleel waaw wallahu yaxtasu bi yi rahmatihi man yasa wallahu dul fadlil azim yàlla mooy seet ku ko neex mu jagleel ko lu ko neex ci xew ay xéewalam sunu borom la soob mu mu mu ci barkeb sëriñ ak seen pas-pas bu ngeen yàgg am ci jumaa ji ak liggéey bu ngeen yàgg liggéey ci jumaa ji ak yéene ju rafet ju ngeen ci yàgg am ak coono bu ngeen ci yàgg sonn mu soob sunu borom mu jag leen leen liggéey bii tey jii loolu yomb nag waaye lu baax lenn lu yomb ci àdduna amut waaye natteblewuma ne di lii buntub yokkute la ci Espagne ak képp ko ci jàpp man nag ci sama turu bopp lu waxi sëñ bi ndax sëñ bi moom yéen la sant waaye sama turu bopp ak turu daayira muxaddamatul xidma maa ngi ñaan képp ko bokk ci daayira muxaddamatul xidma ak foo mën a nekk ci àdduna buntum njariñ a ngi nii bul ni waa Espagne ko moom de na ñun ñëpp nañ ci fas yéene jariñu ndax ñëpp xaj nañ ci ñëpp xaj nañ ci kon fu waay mën a nekk ci ci àdduna bi te bokk ci daayira Muxaddamatul Xidma ñi nga lay soññi nga lëkkaloo ceeg waa Espagne noo mën a fexe ba sa dara dem ci nga dem ci ndax lii kat yónneen la boo xam ne aw sa euh, ndab la loo xam ne sëriñ bi tibbal na leen ko te moo ko raxasal boppam ba mu set ndax kenn ne mu fa ne ko ne ko yox ko waa Espagne moo raxasal boppam ndab li ba mu set mu fas ko yéenee duy ngeen jariñoo ko kon nag képp ku bëgg a jariñoo te wóor na ma ni yéen siisu leen fàttu leen yéene ngeen ñëpp njariñ itam kon nag fu waay mën a nekk ci àdduna bi na fas yéene jariñu ci ndab ndab loolu képp koo xam ne liggéey bu njëkk ba rawan na la te nga bëgg a jariñu ab liggéey ngi ngi nii foo mën a nekk ci àdduna bi def ci sa sa jom def ci sa kàttan def ci sa alal ndax nga dugg ci fan la Sëriñ Tuubaa wax waxfir liman banaw bi bina ahar rafian waxfir liman amarahum bihi jamia yaakaar naa jullit bu nekk la nga gën a bëgg sa ginnaaw bakkan mooy njëkkalul yàlla fépp foo xamante nag boo ca defee sa njëggal taxaw na buñ ne la def ci ah boo yeewoo da koy def kon nag nañu yeewu te xam ne sëriñ bi ñaanaloon na njëggal ñi nga xam ne ñoo liggéey barab bi ak ñi leen digal liggéey bi ak mbooleem ku leen dimbale ak noo leen mën a dimbalee ba liggéey bi taxaw wali jamii man aanahum ala binaiha alladi bi fadlika atala dellu wax ne képp ku ma liggéeyal mbaa nga ziyaara ma suñ borom na nga ko musal te nga jéggal ko ay bakkaaram te yaakaar naa kenn ku nekk nag ñaar yi nga gën a bëgg ci àdduna mooy mucc ak mos la nga gën a bëgg ci alaxira mooy njëggal ak yërmande yépp nag mi ngi ci biir liggéey Sëriñ Tuubaa bii kon nag ku bëgg jàmm nga daaw daw jëm ci ndax inna allazina saarawu li xidmati wa lahumu diyaaru wastal jannati wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. loolu moo doon tëj kàddu yi su ko defee ñu ngi fàttali rek eh, lu aju ci worma ji daayira Muxaddamatul Xidma ginnaaw entretien bi ci ndigalul Sëriñ Saliou ab diir bu gàtt la leen jox lu aju ci penc bi ak li ko wër ne leen yii dama ko fi bañ yii laa fiy bëgg muy bépp xeetu njaay ak jënd ak yalwaan ak wecc ku beeg lu aju ci war mooy yëpp rek dal